bi ak euh, son du jour. voilà euh, ci même lancé bi dañuy dem euh, seetaan du jikko jamono la donc jikko jamono la bu daara ji famille Ndongo et Fada donc toujours égal à eux-mêmes donc le message soit axé sur seen personnage donc il faut abstra abstraction mm. donc ils préfèrent scénariser ko. ñu bàyyi exactement ñu bàyyi nit ñi. et à force de les chercher tout sur le clip. ñu ngi nii sa ginnaaw ñu ngi nii sa ginnaaw ñoom ñaar boo leen xool ah jamono la film parce que y a des décors décors. scénarisé def euh, ils ont utilisé pas mal de techniques yoo xamante ne ñu ngi ci biir ils ont démarré avec le crépuscule pourtant euh, dañ ko dañ ko dëpp ils auraient pu def lever wala kër mais crépuscule lañ démarré ak des gilets euh, yu flotté ça veut dire quoi voilà donc booy xool ay gilets ñoom lañu démarré bon je ce que temps nañu ñu ko permettre voilà donc loo xamante ne. Euh, merci par Samba est-ce que le temps dinañu ko mën a permettre mais en tout cas lu ñu mën a wax rek ci euh, ci ci ci ci ci vidéo yi moom mooy. c'est riche euh, quoi que les Sénégalais après oui xam nga ñun on copie dañu yàlla daf ñu may loolu. mais bis bu ñu copier boo leen copier seen leader yi vous allez comprendre que vous allez aller plus vite. parce que ñoom jàng nañu. te xam nañu peut-être on a ils ont pas le temps toog jàngal mais lu ñu def. Euh, def leen ko vous arriver parce qu'ils ont compris Fada Ndongo muy groupe yu mag yëpp ils ont ñu ñëpp on a ci ci même école yi jàng nañu ko xam nañu code yi donc lu ñu def rek nañ leen copier et vous allez voir que vous allez aller plus vite que de copier un américain ou bien un français euh, boo sa message boo koy xool euh, du universel bu boobaa da ngay nit ñi dañ naan boo il essaie de faire il essaie de faire même bien que comparaison n'est pas raison mm-hmm. jël leen li ngeen moom donc euh, copier leen def leen ay références li ñu def ni y a plein de codes dedans yoo xamante ne à étudier waaw yoo xamante ne bon temps bi duñu ko may mm-hmm. yoo xamante ne mënoon nañ ko décortiquer nekkee ci biir mais euh, boo leen toppandooyee euh, vous allez voir que euh, d'une manière d'une autre di ngeen comprendre le pourquoi euh, ci message yi nga xamante ne tey de Freddy ak euh, yenn artistes yu en tout cas euh, ñu ngi leen di encourager ci clip bi et tout ça là y a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de de ci biir. en tout cas c'est un super clip bien tourné et le message est fort à voir et à revoir sur les réseaux sociaux on accélère très rapidement avec les événements en attendant ñuy jàll ci Awa Gaye ak Woman of the Week. Euh, on rappelle encore que euh, ki nga xamante ne moom mooy le 24 décembre incha allah danañu amal euh, El Hadj Keita l'enfant de la Médina dana def sa une sortie Euh, donc foofu ca Grand Théâtre muy le 24 décembre Sénégal yi yëpp nag euh, di ko préparé donc euh, artiste boobu lee di El Hadj Keita sinon tey aussi clip bu Assane Ndiaye Assane Ndiaye qu'on ne présente plus moom ci boppam tey à 18h les clipam bi di génne donc clip bi xam naa dañ ko mën a am sur YouTube donc 18h pile incha allah le clip bi di génn sinon l'album aussi disponible donc incha allah donc ñu fàttali rek moom datam donc c'est le 22. Euh, samedi 22 février donc foofa ca euh, grand euh, théâtre incha allah la koy la koy génnee donc mu nar a nekk nag benn benn. benn événement bu mag boo xamante ni il va fêter ses 20 ans donc Assane Ndiaye va fêter ses 20 ans foofu ca Grand Théâtre incha allah et puis bon demain on reviendra pour vous montrer l'album incha allah bisous. ok merci donc. beaucoup Exidex pour le son du jour j'adore ce qu'il porte ci affiche bi c'est très beau. donc <laughs> rien à voir avec